sunu gan Ngoné ndoy salaamaaleykum. aleykum salaam wa ancienne ministre euh, euh, sénégalais extérieur euh, nekkoon itam maire Rufisque Est ma Ndiogou Diène li ñu bëgg a waxtaan ak yow moy immigration clandestine bi tàmbaliwaat tàmbalin wu jéggi dayo ci Sénégal ak loraange yi nga xamni ni moom la tàmbalee jur nañ dégg goné yi sax di jéem ba yegg waaye bi yoon ay gal yu tak gal yu ak galu marine. ni mu xewee bërki biig ci boori Ndakaaru ba xamuñu tey jii ñaata nit ñoo loru ci accident boobu nga xam ni dox na diggante gaalu marine nationale ak gaal googu yeboon ne ay gone yoo xam ni euh, am na yéenekaay bu ni sax ci Soumbédioune gi la ñu jë doon départ loolu nag daf la yitteel ndax yaa jiite ONG bu ñuy wax FEMIDEC femme enfant migration développement communautaire loolu tax na sax ngay amal ay wajaas yu bëri bi ñuy mujjee diggante ak yaa ngi woon boori mm. doon ci amali euh, waxtaan ak i sa pexe li xewaat ci Sénégal sa njàngat gu njëkk bala ñoo sori ci waxtaan wi. asalaamaaleykum ma ngi leen di nuyu bu baax euh, yéen ñi nga xam ne yéen a ma dalal di sant yàlla ci mën a wax ak yéen mais surtout di am metti torop tey c'est le cœur gros euh, laay waxtaanee ak euh, Sénégal jaale jaale depuis barki démb jaale rek la ñuy def waa Pikine jaale waa Ndar ndax gaal ga fa tàkk jaale waa Sénégal encore une fois ci collision bi am te DIRPA jox ñu communiqué bi di jaale ci ñiy dee kenn xamu leen te kenn gisu leen te kenn rëddu leen jaale réew mi yépp ci li metti dal ci seen kaw wax président de la république ne ko man dégguma ko parce que man xawma tweet ndax jànguma école awma internet man yaay laa ju doomam des ci àll bi des ci géej duñu kenn ñu ñaar di ay jarbaat di ay borom kër di ay xarit ma di ko xaar ci kanamu télévision bi nationale. 20 mu arrêté tous les programmes jàkkarlook askan wi ndax li li dal ci Sénégal nii toll na ne Covid mbaa mu ëpp ko parce que gangrène la am na président jël journal bi 20h jàkkaarloog askan wi massawu leen jaale leen te yëkkati bigam jël ay décret. kell gi moom yéeme na. jël ay décision hmm. jot na war na. décision yu mel nan par exemple. yi bi ci njëkk déjà. mooy dajale boppam bi Covid amee dafa dajale boppam dajale acteurs yi waxtaan ak ñoom bii dajale boppam mooy woo partenaire au développement yi partenaire technique et financier yi woo acteurs yi association yi liggéey ci biir migration décaissé un montant bu bu am solo jëmale ko ci secteur bi ci naka dama dégg barki démb ba léegi ñuy wax ci mbirum Euh, formation professionnelle jeunesse emploi employabilité ay détails ndax président de la République acte bi mo wara a jël sagal migration sargal ko jox ko gëddam def ko mu ministère. c'est un ministre qui peut parler en face d'un autre ministre ministre de l'intérieur le garde frontière, ministre des finances et de l'économie bi nga xamné mo yor comme comme bo xamné migrants yi indi plus de 1000 milliards par année ci ministère ministre de la formation professionnelle ministre de la jeunesse nous di ministre ministre ministre nga un di ndax yow plus de 3 millions de sénégalais qui sont bitim Nous ñu sous secrétaire d'État. ou wala ñu lay direction acte bi mu décret rendre à ce secteur son honorabilité mais sa puissance. parce que nous ñu ministère de ministère migration avons euh, le ministre sénégalais extérieur du euh, waxuma woon sax ci wiru tur bi parce que tur bi yooyu ay détails la man li ma gëm mooy les migrants ministre man ba bañ bañ ma defoon mi Sénégal de l'extérieur di migrant moom laa gën a gëm ci ministère bi que migration parce que dafa yaatu migration neexu la jàpp migration da ngay fexe ONG yi juddu Afrique euh, association yi juddu Afrique te ëmb ay kuréelu association yu bari yoo xam ne dañuy liggéey ci migration ma di ci cité benn bu am solo muy le de Sénégal de la diaspora ñu fexe gunge association bu toll noonu ba mu doon ONG bu day ne OIM mën a l'interlocuteur de l'Afrique, Afrique nekk le partenaire de l'Afrique, Afrique nekk l' de l'Union européenne sur certains volets mais aussi nekk le réceptacle de tous ces fonds mondiaux qui arrivent sur la migration maanaam koom-koom ak alal bi am ci monde bi Euh, ONG bu mel noonu mën ko téye pour l'Afrique te ñu bañ a jokk toujours ci mbirum nasaraan bi parce que amul benn ONG africaine boo xam ne dafay wuyoo loolu ndax harmoniser wuñu seen i politique sous région bi dajewuñu di waxe benn kàddu mën ko jàkkaarloog Union européenne parce que loolu moo tax collision bi am démb guardia civil bi ànd ci gunge ci état du Sénégal parce que ñoom dañu ñëw ba suñu ay terre dañuy jàppale si ci mbirum Frontex ndax c'est leur politique ce n'est pas la politique nationale. Oui, ils ont signé ak ñoom itam de. moo tax ma di ma c'est leur politique à l'union européenne L'Union européenne c'est un droit la ñu nekk ñoom seen kër la ñuy la ñuy toppatoo di ko far jël seen alal di ci def ñun tamit dañoo war toppatoo suñu kër jël suñu alal def ci biir jël suñu xam-xam def ci pour ñu organiser donc il faut l'harmonisation des politiques il faut que le président parle à ses pairs africains Bindon naa ko ci une lettre ouverte il faut que ñu jël association africaine bu une ONG n'est que l'interlocuteur même le bras technique pour ne pas dire de ces de ces états africains il faut que le président Dello, ministère bi place am ak place, mu mën a waxante ak ay nawleem du siège conseil des ministres au même titre mais di mën a jàkkaarloog nit ñi ci dayo parce que ministre du taxaw di dem waxi ak ñeneen. mais est-ce que nek euh, jox ko def ko ministère euh, Sénégal de l'extérieur migration di régler problème bi gisoon nañ ko fi amon na mais taxul ba légui euh, ñi di migrants yi bi mu amee woon dañ doon nek ci ay jafé jafé est-ce que réellement lolu solution la. buñu ko jàppee non du dem parce que migration bi fi nekkoon irrégulière bokkul ak bii bi pêcheur ñoy dem té dina ci ñew buñu ñu step by step dina ci ñew parce que migration irrégulière dàq won na Sénégal vers 2008 fekke na won plateau bobu quoi que nek woon ministre.

Euh, dayo bi ñu lay jox mais même ci biir réew mi bokkul ministre de l'intérieur ni muy jàkkaarloo ak beneen ministre en charge de la migration que bu fekkonte ne moom dafay dajeek rek un secrétaire d'État wala un directeur question de formalisme la tey warloo dénkaane sa dossier nga dénk beneen ministère sectoriel bu ko gën a mën te fii ay finance ak économie ñu jël ko tasaare ko tasaare jeunesse ak emploi tasaare tasaare tasaare. affaire étrangère la ñu wax et sénégalais de l'extérieur. foofu la bokk <laughs> waaw affaire étrangère et les affaires étrangères sont une diplomatie, une diplomatie feutrée. Le migrant fait du bruit. Le migrant est un être humain buy dundu, di jur ay dom, di am ay soxla am am war amante culturellement ak dëkk yi bokkuñu ay ay ay ay ay doxal ñuy doxal. Euh, euh, je souhaiterais que ñu comprendre que tay la géopolitique mondiale repose sur la migration te du ñun rek ñoy immigrer. ñun dañuy tukki parce que dañu bëgg tukki wala parce que dañu am problème suñu réew am ñeneen ñuy tukki ndax dañu am guerre ku mel ne Syrie am ñeneen ñuy tukki parce que dañu leen boddikonte ci seen biiru diine wala seen l'islam ñooñu ñëpp daje nag fañ xaloo au niveau de l'Occident et des pays du développés soo fa ñëwee les plus faibles mooy ceux qui ont le teint le plus foncé ku mu neex ku mu naqari ñooñu la ñuy gën a teg ay problème soo demee Allemagne da nga fa fekk les dublinés ñi nga xam ne sañu ñu leen a génne sañu ñu leen a fat duñu ñu jàng du ñu liggéey duñu sëy du def dara dañu leen parqué rek teg leen fa parce que loi Dublin moo tax kenn mënu leen a génne mais tamit kenn ñoom duñu leen utiliser parce que amuñu kayit soo demee Espagne du fa jeex ñu ngi leen parqué si ay centre de rétention loolu kilifa bu dem ak ñoom dayoo moo ciy jëkkonte ak ñoom wax ak ñoom négocier ci ak ñoom toujours si mesure yi président war a jël parce que fa laa nekkoon euh, à harmoniser les politiques au niveau sous-régional appuyer une ONG forte qui puisse avoir doole bi ONG euh, kii am OIM mobiliser acteurs yi te loolu euh, damay saluer le directeur Sori Kaba defoon na déjà defoon un atelier de trois jours à Sali. Saly a fa tous les acteurs créer ce qu'on appelle un cadre de concertation cadre qui amène l'État du Sénégal amène partenaires au développement amène les acteurs eux-mêmes amène les parties prenantes Nous devons def un cadre qui est ni bu fekkonte ni taxaw na kon tey l'Union Union européenne et na Sénégal parce que le cadre est une lisibilité indi lisibilité fi fonds yi du parce que cadre bi ci lañ waroon di dajé ñiy financer di financer ñiy exécuter di exécuter mais acteurs yi seen bopp yi ko moom teew. donc fay dafay da fay am éligibilité mais fofu lañ ko bayyi arrêté arrêté mo mo téré mu génn génnagul c'est pour dire que euh, euh, priorité yi duñu ben su doon ministre mo fa nek day xamné li priorité la ba tey kon signé nako ko installé ko ba cadre bi commencé dox. xam nga xalaat yi moom saa su ne day jib euh, yi nga fi proposer ci ay solution am na solo am na yeneen yu ko jitu won ci yeneen at. waaye bopp gonek Sénégal yi lees ci mën a dugal ba xamal leen ni euh, itam euh, tukki ci wenn anam wi euh, jaay sa bakkan googu jarul def. ndax gaa yi dégguñu fi ñu toll nii. kon ma génn ci président ndax ci ma dugaloon ci mesure yi mu war a jël ma dugg ci sunu bopp foofu nag benn phrase rek laa lay njëkk wax mooy dañu ne jur mu dee du yara dal jur mu ne léegi te fajul dara mooy yara dal réew boo ko bëggee diriger danga koy xam. xam seen culture xam fan la ñu jëm xam lu nekk ci seen bopp comme ñoom tollul na leen foofu ne soo fi nekkee te amuloo njëriñ nga bañ fee nekk ma ko gënal war nga xam ne kon kooku bu sóobu ci géej diggante bi dara xaju ci parce que loolu la mandi jur nga ko nag sa njaboot la war na liggéey war na nekk qu'est-ce qu'il faut faire duma président de la république nekkuma actrice au au niveau ci gouvernement bi waaye liggéey yi nekk Sénégal jeexuñu xaajuñu waxoon naa ko fii nag dama koy waxaat secteur d'activité bu am bu nekk sénégale yaa ngi ci di yëngatu kon soo bëggee fekk ku xiif nga ne ko dama lay defale ji formation tu n'as pas compris da ngay def formation emploi soo xëyee jàng su ngoonee nga liggéey wala soo xëyee liggéey su ngoonee nga jàng xam ne su weer bi deewee dinga am une partie boo mën a jot muy li nga liggéey mais di nga am xam-xam ci geneen wàllu waxtu bi

am nañu xel bi bëgguma <laughs> boo may dagg damay damay réer euh, bu fekkente ni am na ñoo xam ne ni am nañu xelu liggéey am nañu xalaatu liggéey mais mënuñu gérer parce que sénégalais toujours ci éducation bi nga xam ne les différentes colonisations moom lañ ko jox éducation boobu mooy liggéeyu ñu fay la xamuñu entrepreneuriat ku xamul entrepreneuriat da nga koy gunge l' état investit dans le secteur de la couture l' état investit dans le secteur euh, des tanneries l'État investit dans le secteur des cordes de cordonnerie secteur yi bu ci État investiré indi xale mais liggéey boo xam ne euh, dañ lay petit à petit pour état l'État bàyyi la nga dox ci biir defoon naa programme bu leer ñu indi woon ko RFM matin et dans ce programme là ci demandé une bourse familiale amul solo parce que ça rek lay fait. Si on 8 milliards ba tey à presque 40 milliards On mu nekk investir dans 3 régions par 3 régions kuy 2 à 3 000 emplois par secteur d'activité. dans la couture c'est là où le président de la République décrétait le port de l'uniforme à l'école. Il dina fait plusieurs millions de de de tenues des milliers de tailleurs nos ko C'est ci laa le président de la République l'arrivée arrivé bois bi ñëw ci biir Sénégal euh, produit menuiserie yi ñu arrêté su ko defee menuisier Sénégal yi mën a liggéey former yeneen menuisier ñu liggéey que du caagin rek administration ñoo ko war a jëfandikoo mais biir kër yi war nañ ko jëfandikoo lan la loolu jur soo demee tey jëm ñaajo chinois yaa ngi fa di def confection pas pour jaay ñu ko pour jaay ko extérieur donc wàññi seen coût investissement te du ñu fay correctement les sénégalais donc dund ñun ci li ñu préparé plutôt que ñoom ñu di ko doon man je ne cherche pas inaugurer des des des investissements de la Chine ou de la Corée ou d' autres pays li ngay inaugurer moy des investissements de sénégalais fait par des sénégalais té lolou ba ci bir mbay mi nga ne sénégalais yi nañu bay té wa Sénégal duñu lek produit mbay seen il s'agit pas de di consommer local mais ko wax mooy sama dom du lek cere sama dom du lek nakhal sama dom du lek baase sama dom du lek tel tel tel chose parce que meññeef ba ka gerté wara dimbalé sax dugub war ko koo dimbalee dem na diko jënd ji blé bo xamné ba ñuy defaree fii ci réew mi sax soxla wuñ ko loolu dañ koy jëlee à l'extérieur agriculture bobu fan lay dem il faut accompagner cela par des mesures yo xamné ak ay possibilités facilitation loolu nak ci jamonoy Abdou Diouf ba légui gaañaa ngi ci euh, nguur gu fi tok rek jëm ko ñaaxi askan wi waye askan wi te ticc rek né du jëfëndiko li meññee fi ak ñaaxin ak doxalin mënuloo am ce secteur culturel te do ko rendre vivant dama daan dégg yàlla na ko yàlla yërëm Abou Camara muy bu daan xas xale yu góor yi ndeysaan naan demkatu cinéma bi te industrie culturelle boobu dañ ko war a valoriser mais xam lan lañu ciy def mun loo defa téléfilm wala ngay def théâtre wala ñu war a ubbi waatoon sax cinéma yi te la nga cay dugal culture jàmbur rek la xale yi à table la ñuy lekk ci suñuy téléfilm xale yi ay pantalon yu wow koŋ la ñuy sol ci suñu biir ay téléfilm xale yi ay cheveux yu ñu dagg la ñuy sol ci biir ay téléfilm nan nga bëggee ki nga xam ne mu ngi soog a juddu di consommer li nga bëgg mu ko mënul nekk su ko defee nag foofu la la la yar di taxawe foofu la contrôle di taxawee dañu war a xool lépp lu ñu laata indi boo bëggee développer l'industrie culturelle nga fexe ba téléfilm yooyu di indi ñun li ñu bëgg mu ñëw parce que loolu mooy sunu intérêt. xale xale yi ñuy làkkaloo tubaab ci biir kër yi nag. loolu ba tey leneen la man dama bëgg su ma nekkee ci dara wut ko ma dem ci ba jeex te ndax damay wut liggéey fi ma nekk nii liggéey laay wut dama bëgg ñi nekk ci théâtre bi nekk ci film yi nekk ci cinéma bi am liggéey mais liggéey bu sakkan liggéey buy jëriñ à table la lekk man lekkuma a table. sama sama bool laay lekkee lu tubaabee rek la ñuy wane. donc loolu tamit be ka nga xam ni moo nangu ñu valider téléfilm ba ak ka ko passé ci télévision bi dañu war a waxtaane ak ñoom. te war nañu mën a ibbi sax salle de cinéma yi bu fekkente ni lañ cay jàngale dafay jëriñ xam nga nasaraan bi buy préparé xaleem bi jógee lycée di jëm université di am ay petites copines di ànd ak ñoom naan damay dem cinéma ni ñu war a ci seen kër lañ leen ni ñu war a dunde bés bu ñu sëyee ni ñu war a nekk ni ñuy mottalantee et cetera lañ leen di wan ci ñun dañ ko war a def fii parce que kenn toogatul ci kër yi pour def loolu damay jeexal rek ci industrie wu euh, religion parce que dañu am lu mën a dundal Sénégal te jëfandikoo wuñu ko muy la religion musulmane li màkk di dudde tey fii la gën a baree àdduna bi yëpp ñooy dem defi pèlerinage à la Mecque mais da defe ne fii sunu ay këru diine yi amuñu lu ñu war a wane waruñoo mën a seeti masaalikul jinaan waruñoo mën a seeti kër Serigne Touba waruñoo mën a ñëw ci xuntu maam Baye Laay bi waruñoo mën a jël euh, euh, tey médina Baye def ko commune permettre waa Nigéria yi ko bëgg ñu jël ko def ko un fleuron waruñoo mën a dundal alxuraan bi nga xam ne sunu xale yi fépp fu ñu dem ñooy jël raayo yi ci prédication ak ci waxu alxuraan ba tax nit ñi di génn jóge bitim réew ñëw fii di ko déglu si di fi xencu si di fi gëstu si wut ay infrastructure hôtelière yu leen accueillir liggéey loo xale yi liggéey dañ koy génne dañ koy dañ koy yaatal ku génne ne kii li mu sol baaxul ba boo indee loolu ku ci bëgg a liggéey bëgg ci jëriñu di nga sàng sa ay cër teg ay taxi yu leen di yóbbu ay bis yu leen di yóbbu revoiraat yoon bi ñu war a jaar noonu la liggéey di génne. Mm, léegi par rapport à immigration clandestine bi euh, boobu léegi yow nguur gi ngay ñaax ne ñoo am responsabilité ñoo waroon def lii defuñu ko ak li ñu war a def mais njaboot yi seen bopp parfois da ngay gis ne njaboot yeeg yaay yeeg yooyu ñooy encouragé seen doom ñu dem euh, teggi seen natt wala jox leen xaalis ñu dem lool tamit euh, loo ci wax est jotu tamit njaboot yi ñu yee leen ci lu ni mel. ndax am yemuma rek ci nguur gi je parle dugalaal naa ci yi moo tax ma ma génnee ne Euh, jur mu dee du yara dal jur mu ne léegi te fajul dara yara dal yooyu jigéen ñi xam ne ñoom laay waxal xam nañu ne ñoom ñoo war a pas seulement sax seen bëgg-bëgg mais bëgg seen njaboot bëgg sa sa doom ndax li mu doon ci xelam ndax li mu doon si juddoom ndax li mu doon ci valeur am ndax li ko suñu borom yàlla may taxee na may ko moromam ndax li mu war a doon ëllëg pour réew mi parce que war nañoo dindi fëgg dana ne man lu ma ci am loolu dafa dafa pervertir àdduna bi su doon man lu ma ci am man tëdd sama kër bu yàgg

ñi nekk ci biti di sagoo li ma mën ak li ma te yoroo dara munoo dara amuloo dara sag boobu tant que wàññi wuñu ko néeguloo wax ni mënuma lii man bi may ñëw fi taxi moo ma fi indi xaw naa tardé parce que taxi bi dafa yéex a ñëw lan moo tax du wax ne man taxi laa jël parce que j'ai été ancien ministre je ne le suis plus j'ai été trois quatre sept mois dans l'exercice du pouvoir delloo naa état bi ay oto de quel droit je dois me dire war naa dawal un bolide parce que da sagu sagu jëm fan li nit di gën a moromam buy sangu di ko dindi na nit ñi delloo si waat seen xel xam ne sa jaar-jaar si àdduna njëriñam mooy li ngay jëriñ nit ñi nga fiy bàyyi mais ce n'est pas ce que tu gardes en poche te am na leneen je veux revenir un peu sur l'ONG waaw waxtu bi waxoon naal ni la boo may woo dem woo temps bu yàgg <laughs> réew mi moom dama ko jiitewul rek waaye ku ma ma béy ko dinaa la yóbbu ci yoon wi ci kàntanu yàlla ak baaxam waxtaan wi am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Ngoné Ndoye ancienne ministre euh, jiite ONG FEMIDEC euh, ONG boo xam ne yëngu ci wàllu ñaaxaate ci migration jëmale ci gone yeeg jigéen ñi rawatina ak seen yokkute mm. euh, boo ko tënkee lépp développement communautaire jaajëfalaaj Ndiogou Diène